Euh, léegi nga ñëw ci géejuwaay ni mu mel. ñu xam ne géejuwaay gépp benn bopp la euh, am na coow yoo xamante ne yaa ngi ko ci doon dégg ci yenn mbër yu jëm ci mbër jóge ci ay xale nga doon xale est-ce que yaa ngi moytu loolu. waaw man maa ngi moytu loolu ndax ki si mel na Balla Gaye suñu kilifa la. Lac de Guiers 2 suñu kilifa la barki démb woolu na ma këram Lac pour waxtaan ak man alin Seye les deux day ñëw fii. kii xam na daf fii ñëw chaque instant di ma nemmeeku. ay borom baax lañ te ñun ñuy seen ay rakk. kon ñoom suñu référence lañ. nañ ñu sàmm ñun xale yi teg ñu si code ngir ñu egg ñoom fu ñu egg. xale yi tamit ku si mel na bu sitt ak safara. lu ñu jogtee nekkul li nga xamante ni si moo leen di avancé loo. déedéet. mbër da ngay wane sa bopp guy gi ba làmba di làmb. moom kese moom moo fi def benn saison sept combats sept victoire. kon booy yi nga xamante ni ñi ngi si gannaaw guy gi di jéema a guy gi nañu bàyyi guy gi te dem entraîné jéem a am lu guy gi am te ñu bàyyi guy gi ngir yàlla war a suul loolu laa leen di ñaan bu ñu toppee nag yenn waxkat yi nga xamante ni si du mbër te dañuy topp média bi kese di wax lu leen neex ku si mel na buuse ak papsaar Sarr bu Pikine ñooñu ñooy yàqal làmb buuse ak Pape ñoo ñooy jaxase géejawaay nañ moytu loolu nuñ na yem Pikine Lac bu sànnee traak Eumeu Sène moo ko Eumeu la mais bu mu si génn di si wax dara ndax ni mu bëggee Eumeu Sène ñun noonu la ñu bëggee Lac de bu waxee loo xamante ni si daf ñuy tuuse ñun waa Lac de dañ koy tontu kon gérer Eumeu Sène bàyyi Eumeu Sène tontul boppam Lac de ndax contrat moo leen boole ki si ne am na droit wax moroomam lu ko neex ndax làmba ku si mel tamit ay buuse Boucher doomu géejawaay la. doomu géejawaay la ñooy yeewandoo chaque instant mais na bàyyi lu muy def. mu def. nay bàyyi di dem si waa Balla di wax di ñëw si guy gi di wax bu subaa mu ni guy gi sama bàyyi la ginnaaw suba mu dem si Balla Gaye ni bu kii sama na bàyyi loolu. mbër yi ñoo kay ñoom ñaar ñëpp ay baayam lañ tamit am na droit dem kër baayam. mais na wax luy defar te bàyyi wax luy yàq mooy dëgg. ndax ñun géejawaay ba ñuy leen di bëgg dëgg dëgg dëgg Lac de Guiers Balla guy gi nii la ñu def. bu ñu demee tey ba def cent pour cent géejawaay ñoom nii la ñu defoon mais bu ñu demee tey ba benn instant ëppan presse su benn mbër bu amee yi mbër yi ñëw yii duñu ñëw kooku xaajaloo am na si te dara waralu ko lu dul buuse du ma ko nëbb damay jaar si digg bi wax ko ko na bàyyi li muy def ngir yàlla war suul su ma jógee foofu nag di nuyu kenn koo xam ni kenn la si man muy Jeylaani Saw duma ko mos a fàtte wallaahi lazim ndax daf may taxaw guddi di taxaw bëccëg di nuyu tamit waa Lobbudu yëpp ak waa Mbay Awa waa Kër Momar Sarr waalo yëpp waa Ndeer Ndeer sama cosaanu papa maa ngi leen nuyu bu baax ak ñoom Moussa Abu ay waa père almaami ay per ma Massamba Der gi yàlla jàllee leen ma li ñii moom wax dëgg yàlla samay papa yu nga xamante ni sii dañ maa fonk lool di leen ñaanal gudda fan ak wér-gu-yaram ak yokkute ba ñu yëg macha allah wasalaam.